loolu ndaje yi mooy Senelec dafa dafa toll li ñuy wax si tubaab à un tournant décisif parce que bu ñu xoolee àddina bi fi mu toll am na ñu xam-xam moo koy doxal ah parce que ñu ngi wax intelligence artificielle ñu ngi wax euh, euh, tout ce qui est multimédia donc solo ndaje si mooy ko comme Senelec dañu nekk si benn contexte boo xam ne Sénégal déjà mi ngi dem si émergence ñu ngi def ay découverte pétrole Senelec dafay jéem donc xëcc ñi nga xam ne moo gën mën nañu wax si si si si si élèves donc solos ndaje si mooy dañu woo école de formation yi woo woo aussi élèves yi pour wax leen lan mooy métier Senelec nan la Senelec di liggéeyee si togg courant bi yàkkale ko ba fekk ba buñ koy yàkkale ko donc transporté ko maanaam jaarale ko si kii yi si si si transport bi ba ba niñ koy jaaye donc ñu permettre leen aujourd'hui ñu échanger avec ces élèves là pour leur wax pour wan leen nan la seen élève di doxee ñaareel solo su ndaje bi mooy école de formation yi école de formation yi seen élève dafay recevoir ay stagiaires yàgg na ko def mais aujourd'hui dañ dañ dañ ko def dans un cadre formel maanaam dañ ko tënk si kayit boo xam ne day wax partenaire bu nekk lan la war def donc ñun dinañu permettre ñun ñu wax leen nan lañ ban métier yan métier la soxla nan la ñuy recruter ay stagiaires ba nan la leen di jëlee aussi parce que boo jëlee stagiaire mu nekk stagiaire bu baax le mu jëntal bi mooy nga jël ñun nag aussi dinañu permettre ñu aussi ñu dem si au niveau de ces écoles de formation yi parce que seen rek aussi métier la dafa am professionnalisation à travers ñi nga xam ne ingénieurs yi dugg nañ fa ñu jàngal leen si CFPP et ñu delloo si école de formation yi dem di def la formation professionnelle de donc ñaar yooyu bu ñu ko boolee dina tax élèves yi bu ñuy egsi dinañ fexe dinañ xam métier seen rek ba nga xam ne bu ñu dugg see rek dañuy nekk lu ñuy wax dañuy xam liggéey bi dañuy nekk directement opérationnel donc ñaari objectif yooyu lañ si donc di jaajëfal ñu fi taxawoon ñëpp muy école de formation yi mooy élèves yi ñu ñu ñu ñu en tout cas fekk si et aussi tout la presse qui a bien voulu gis nañu effort yi Senelec di def gis nañu innovation yi Senelec def gis nañu aussi ubbeeku bi Senelec def ba mën a permettre étudiants yi nga xam ni ñu ngi suñuy école yi ñu mën a ñëw xool lu Senelec di liggéey ñu mën a ñëw xool Senelec lan la soxla pour que bu ñu leen former ba pare ñu mën a ñëwaat à travers les stages à travers les visites d'entreprise bu ñu mën a ñëw def Senelec xam réellement lan mooy euh, cœur de métier de Senelec et surtout bu ñu génnee ñu mën a déposer comme ñeneen ñi euh, pour que Senelec mën leen recruter parce que simplement ils ont été bien formés jàngal nañ leen tàggat nañ leen suñu université yi ba nga xam ne bu ñu génnee rek ak stage yi ñu def ak visite d'entreprise yi ñu def day gën a yomb seen insertion si biir Sénélec. waaw loolu aussi dañuy sant Sénélec bi nga xam ni moo ñu permettre loolu xam nga ñun école ak université yi bu njëkk dañ daan dugg suñu amphi rek entre experts ak yooyu ñëw euh, bâtir ay programme léegi nag Sénélec daf ñu may li ñu doon wut mooy maanaam ñëw xam seet si xam lan la ñu soxla seet xam seen installation yi naka la. pour que ñun bu ñu delloo suñu amphithéâtre yi bu ñu delloo suñu bureau ñu mën a toogaat adapté maanaam ñu gën a tàggaraat suñu xale yi si réalité yi xam ne fekk nañ ko sur le terrain donc loolu duñ si sa duñ si tàyyi di gërëm Senelec ak seen direction bi et di wax ni que aussi boobu ba léegi ñu ngi gis Senelec di am ay innovation maanaam ay coppite ay adaptation yu ñuy def yu nga xam ni ak surtout sur la plan de la communication pour permettre ñi nga xam ni xëy na xamuñu woon Senelec euh, ñu gën ko xam en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm si initiative boobu ngeen jël te wax dëgg yàlla ñun école yi gis nañ si suñu bopp. comme ni ngeen ko waxee léegi dama ni Senelec wane na yoon bi Senelec wane na yoon bi entreprise Sénégal yëpp bu ñëpp defoon ni Senelec tey jii nii le chef de l'État le plan Sénégal émergent bi mu bi mu teg dans des dans un des axes boo xam ni moo si gën a am solo mooy capital humain. maanaam former ay tàggat nit ñu nga xam ni mën nañu yore seen destinée mën nañu yore euh, maanaam les destinées du Sénégal donc bu entreprise yeneen yi muy euh, à part Senelec bu entreprise yeneen yi defoon comme Senelec tey jii nii dinañ si gis suñ bopp te état bi dina gën a avancer si les projets majeurs léegi comme ni ngeen ko gisee nii si nañu ay convention pour permettre ñun suñu étudiants yi ak suñu élèves yi ñu mën a am ay stage facilement au niveau de la Sénélec pour permettre suñu étudiants yi aussi ñu mën a xam lan la Sénélec di liggéey courant bi fu muy jógee naka lañ koy euh, consommer nan lañ koy jaayee du dëgg affaire euh, en toute transparence wax dëgg yàlla ñu ngi sant direction générale Sénélec pour euh, effort yi ñu def nii ñun daal gis nañ suñ bopp et incha allah rabi dans quelques années ngeen gis ni que effectivement Sénélec effort yi mu def ngi porter ses